alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw ba ñu teewloo alquranul karim incha allah ñu fas yéene indi li nga xamante ne mooy yóbbal waaye yóbbal gi du génn alquran tey dañoo fas yéene indi rek benn suraat muy suuratu yaasin di saar woo xam ne saar bu bari ngëneel la yonent bi day wax ne sallallahu alayhi wa sallam li kulli cheyin qalbun wa qalbul quran yaasiin dafa ne loo gis rek am na xol mm-hmm. mbir moo gis am na xol waaye xolu alquran mooy sootu yaasin lool day wane ne ngëneel li nga xamante ne sootul yasin am na ko mhm. yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne mi ngi jàng sootu yasin yàlla dina ko bindal tuyaaba ku jàng alquran fukki yoon ku jàng sootu yaasin yaa ngi mel nii ku jàng alquran yi ba mu jeex fukki yoon kon loolu bokk na ci ay ngëneelam mhm. bokk na ngëneelam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne jàng na sootu yaasin ci guddi te li tax mu jàng ko lenn képp la mooy wut ci ngërëmal yàlla mooy su xëyee yàlla dina ko jéggal mbooleem li nga xamante ne mooy ay bàkkaaram saa yoo jàngee guddi sootu yaasin nga def ko ngir sàkku ci rek am ci ngërëmal yàlla boo xëyee suba yàlla effacé la sa mboolem bàkkaar moo tax yonent islam daan na digal nit ñi ñuy jàng sootu yaasin ñeel ñi nga xamante ne ñooy way faatu yi képp koo xamante ne am ko faatu ci moom mhm. mu da ko jàngal li nga xamante ne mooy sootu yaasin bokk na ci ngëneel lii soxna bintu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne saxal na di jàng sootul yaasin gudd gu ne nga saxal ko di ko jàng nee na boo génnee àddina maata shahida da ngay mel ni koo xamante ne daa faatu ci shahid mooy koo xamante ne daa faatu ci ab xare kon loolu bokk na ci sootul ngëneel yi nga xamante ne nekk na ci sootu yaasin wax na ne yaasin li quri at la sootu yaasin loo ko jàngee rek yàlla fekk ci lool soo amee aajo jàng ko yàlla faj sa aajo bu dee da ngaa tawat jàng ko yàlla maanaam faj li nga xamante ne mooy tawat gi soo bëggee dara jàng ko yàlla defal la li nga xamante ne moo nga bëgg maanaam yaasin li maa quri at loo ko jàngee te yéene ko ci rek yàlla defal la lool nga xamante ne mooy li nga ci bëgg ñu joxe si nag benn ngëneel woo xamante ne nitu yàlla yi wala gaa yu baax yi dinañ ko jàngee yaasin muy ñeen fukki yaasin ak benn dañuy wax ne loolu xajul ci aajo aajo bu la të të xëcc nee jàngal ñeent fukki yaasin ak benn yéene ko ci suñu borom faj aajo bi wala nga jàngee ko nii ma la ko waxee nii booy jàng sootul yaasin booy tàmbali da nga naan yaasin nga baamu ko juróom ñaar yoon booy jàng-jàng ba ci aaya bi ñuy wax zalika taadiru azizil alim nga baamu aay boobu fukki yoon ak juróom-ñaar soo continuer ba ci biir ba toll ci aaya bu ñuy wax salaamun xawla min rabbi rahim nga baamu aaya boobu fukki yoon ak juróom benn boo demee ba aaya ji mujj muy awal laysa alladi xalaqa samawati wal ardi bi qaadirin ala an yaxluqa mislahum balee nga baamu aaya boobu ñeenti yoon tey jii soo jëlee juróom-ñaar nga dolli ci fukk ak juróom-ñaar nga dolli ci fukk ak juróom benn nga dolli ci ñeent day doon 41 lii nag boo ko saxalee nii di ko jàngee yaasin hmm. aajo boo am rek suñu borom dina la ko faj te soxna bintu insha allahu bi hmm. képp koo xamante ne am na tawatu xol hmm. tawatu xol wala tawatu yaram nay bari lu muy jàng suratu yaasin bu koy defar rek daa dem ba mujj ko xolam dana doon xol woo xamante ne xol bu set lay doon incha allah te ajo boo am rek bu ci yéenee suñu borom fajal la ko incha allah rabbi tey jii tey loolu moo doon yóbbal bi yàlla nañu suñu borom nangu leen. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala